lii waru ak seen émission lii waru soxna Mbodja Mbaay borom jom borom kër gi tey lijjanti lu ne mi ñëpp xam fas yéene ànd ak ay ndaw di leen wax ne ma koy defee chaque samedi rek euh, fii ci lii warul chaque samedi 21h jàpp minuit soxna Mbodja Mbaay mi ngi leen ciy woo yéen ñëpp nag ubbi leen ay buntam yëpp li warul dafa ëmb lu baree baree bare lu nee ci biir li ci kër gi li ci néegi li ci mbedd mi lépp ci li warul la doon. fii ci rajo làmp Fall du yomb mën a góor ñi xamante nañ mën a jigéen ñi xamante nañ te dañoo war a jàkkaarloo. képp koo xamante ni da nga am problème ci sa néegu sëy muy jigéen ku am problème ci sa néegu sëy muy góor. ak noo ko bëggee ñu defal la ko noonu jàllale ko ci rajo bi toog ubbi suñu antenne gars yi dugg waxtaan ak yéen. 728 628 05 54 dañ ci daal di toog di ci waxtaan bu baax a baax ku nekk sottantey xal ak soxna Mbodj Mbaye 21 heures jàpp min bi ñaata temps la 3 heures de temps mais bu la benn problème jaaxal ci li warul te ñëwoo waxtaan ko soxna Mbodj Mbaye kon nag xoolal bu leen ko di raté da leen xel seen café Touba gu teg ci rek seen beñe wala seen getta caaf toog nag jàpp ko 21 heures jàpp min bu kenn nelaw